maire ki nekk ci maire bi dama ko yërëm ndax xëy na sax bëgg na. ah ki nekk ci maire bi nga koy ma ko yërëm mooy xëy am na yéene liggéey wala leneen waaye mënut a liggéeyam ndax bala nga am ne liggéey compétence bi dafa war a nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye li mu man mooy nelaw monsieur boo waxee mu kooku moom li mu war a li mu war a def moom mooy li mu war lenn hmm. woote conférence presse ñëpp di ko déglu hmm. mu jéggalu waatuwaay yëpp yëpp yëpp jëlaat liñ ko dénkoon moom jox ko sëñ Sidi sëñ xool ko compétent mu jox ko dëkk bi ndax dëkk bu ñu ne fa la sëñ Tuubaa xam ak sëñ Tuubaa ni ko xam-xam ñora woon hmm. def adduna bépp ci xam-xam ñu ne kan moo jiite dëkk bi ñu ne ka ko jiite mënta liir mënta bind loolu moom gàcce la ci yoon murit moom loolu moom lu ñu war a rectifier la moom mais est moom nga war a attaquer ka ko jox kay sëñ bi xanaa moom nga war a waxal buñ la <laughs> la joxee loo mënul nga ñëw ne lii man sëñ bi jox na yow yaa ne ko mais moom waxu munu ko ay fele di munu ko mooy ba mu fi toog ba def fi dara. laat ka def fi dara. ah li mu fi def bilan ba mu fi toogee ba léegi. bilan sero zéro sero sero bu def fi tus. laat ka def fi dara. lu <laughs> dul bénéfice ci di ci tabax di ci takk ay jabar di ci tabax ay kër. di taxawaa lu ko neex mu def. li war a def mooy woote conférence de presse ñëpp di ko diglu bu ca paree it wëraat ci kër waa Touba yëpp yëpp yëpp doon da ko def juru dund yëpp mu jéggalu leen mm. jëlaat lenge dem jox ko sëñ Sidi mm. sëñ Sidi li fi nekk ci ay nit ñu jàng li fi nekk ci ay borom xam-xam di ay taalibe sëñ Touba kenn xamul toll mu jël dëkk bi jox leen ko mm. Touba développé ndax bu Touba développé Sénégal développé